xew-xew bu mag bu ñu dëkkmal muy am Darou Mouhty ajuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom ci weeru gàmm jumaa ji ngeen gis nii di jumaay Darou Mouhty Cheikh Mahamad Hawa Balla moo ko tabax tegoon xeer wi benn fan ci weeru mai 1966 bi dëkk bi demee ba nga xamante ni xajatuñ ci jumaa ji ñetteelu xalifa borom Daaru Muxti di Serigne Cheikh Khady moo yokk jumaa ji ki nga xamante ni bii mooy juróomeelu xalifa borom Daaru Muxti di sëriñ Bassirou Anta Niang ginnaaw ba mu ci jotee ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké mu ñaanal ko ci mu fas yéene yeesal taaralaat jumaa ji liggéey boobu nag mu jàpp ko ajjuma jii di ñëw di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom um, ci weeru gàmmu di bis bi nga xamante ni ci la borom moo Mouhty feeñoo ñu di ko yëgal nag bokki jullit yi bokki taalibe yi te di ci woo ñëpp kon xew-xew baa ngi noonu muy ni ngeen ko gisee coppat goo xamante ni Serigne Bassirou Anta fas na ko yéene ànd ak njabootu borom Darou Mouhty gépp ngir gën a taaralaat néegub yàlla bii di jumaay Darou Mouhty kon ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre di fukki fan ak juróom ci gàmmu di bis bi borom Darou Mouhty feeñoon te Serigne Bassirou Anta di ko màggal at mu jot bis boobu di ajjuma ci la ñuy xeer wi ci bu fukki waxtu ak benn jotee ci suba di 11h kon ñu ngi ciy woo ñëpp te di leen xaar ci pàkk bu tedd bii di darul Mouhty